jërë ngeen jëf ami téléspectateur u people 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci yéen di nuyu sunu kilifa diine yi ak sunu kilifa aada di jaalewaat Sénégal di jaalewaat umma islam yëpp muy naqar bi nga xam ne am na tey di accident bi nga xam ne ah, jot na am tey ci suba di ñaanal képp koo xam ne sa bakkan rat na fa rek yàlla na la sunu borom defal jàmm. ci kaw loolu rek li may wax. lu mel nii bu xewee. Mhm. te internet sénégalais yëpp. Mhm. damay seeti ñi nga xamante ne aussi tamit sénégalais yi baaxoo nañ di leen déglu. Mhm. ku ci mel ni jëmm ji di alxakim borom sarax yi. fas yéene Cheikh ak moom waxtaan. Cheikh bi dama lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am kontaan bu baax. di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. di wax ne ab jullit bu ko euh, dara dalee. dañu wara a delluwaat ci yàlla. te xam ne suñ borom mooy dogal ko xamoon ne suba dinga nga di nga di di nga dund euh, di nga dem jaamu ji yàlla waaye nag yàlla suñ borom euh, maanaam dee ci mbégteer mbégteer rek lay lay dikkee kon nag loolu bu amee ñu gis ne accident bi amaat diggante entre Saint-Louis et Dakar ne met nekk métti na loo xamee ne métti na ci xol ci ci ay ay ay ñi nga xamee ne seen i mbokk dañoo am ay ay doom yoo xam ne dañ caa ñàkk seen i bakkan mm-hmm. kon nag loolu dañ koy dañuy ñaan yàlla suñu borom yërëm leen te jégal leen te xar leen àjjana yi gën a kawe seen i njaboot suñu borom teg leen loxo ñi nga xamee ne euh, seen i mbokk yàlla may leen xolum muñ kon nag daanaka tey aw naxar lañuy lañuy lañuy la ñuy xëyee lañ xëyee dëgg la waaye loolu dañ koy sante yàlla parce que Abdoul moom lépp loo xamee ne rek la gën a am solo mooy na koy sant yàlla. Mhm. baax a baax kon nag dama lay delloowaat kàddu gi rek incha allah. Mhm. ma ma ma ma rekk la waat tuuti parce que sama ñëw ma fi ñëwoon. Mhm. tombeeg accident bi amoon. Euh, bi ma ñëwee. daanaka lu mel ni junjoon nga ma ko. Euh, xam maa damay dem a dina am diggante Touba Ila Touba ak euh, Dakar diggante Touba Dakar. loolu noté nañ ko. accident dina am diggante Dakar euh, Fatick. Mm-hmm. loolu noteel accident dina am diggante Dakar ak Kaolack accident dina am diggante Dakar ak ak euh, Saint-Louis léegi nag xam nga yow noté nga ko. maanaam accident ci tali. tali boo mën a gis suñ borom loolu mënut a ñàkk. Mm-hmm. léegi nag tey jii buñ notee loolu jiyee xew léegi ma ma dagg li ñu waxante woon. ma ne li waxoon nañ ko. <laughs> léegi te pourtant teguma ko fenn. Mm-hmm. dafa am loo xam nga comme exemple ngeen tey euh, boo xëyee suba dina am ku faatu. Mm-hmm. dina am ay nit ñu faatu loolu kay wax ju yàqu la parce que di nga xam ne am na ñuy faatu. Mm-hmm. mais rek naan xam nga li gën a wóor mooy. Mm-hmm. bis sàngam accident dina am. bis sàngam. accident dina am diggante dëkk sàngam ak mhm. dëkk sàngam mhm. gis nga loolu boo ko ku ko mën a def mhm. boobaa dinañ mën a xam ne yow mii li ngay wax lu wóor la li ngay wax am nga foo ko teg waaye accident ci de mille vingt deux bi deux mille vingt deux bi non deux mille vingt trois bi dina am loolu ay wax ju yàqu la parce que bu ma nee la diggante yi diggante yi ma la wax nii foo mën a jaar du yàgg nga déggaat bi accident bu am gars yi dañuy dawal ba si yàgg seen pono bi pono bi toj nga jekk gis jàkkaaroo garab nga mbëkk ko. Mhm. wala oto bu doon ñëw sax nga croisé rek moom. Mhm. loolu ay accident la de dafa loo xam ne yéen <laughs> maanaam. Mhm. nit booy wax da xam li ngay wax lan la. ma ñëw ci vidéo bi nga xam ne jot naa jàll. mu mel ni lii nii am na loo xam ne junjoon nga ma ko ci donte doo taxaw taxawaayu sunu borom di wax lii mooy xew suba. mais am na loo ma junjoon lan moo taxoon nga wax loolu. waaw euh, maanaam lii du xam-xam. lii du xam-xam li tax ma loolu. maanaam dafa yomb lool ci ci accident dina am dafa am ay mbir yoo xamee ne euh, bu bu dee am da xam ne xalaakul xel yàgg-yàgg accident dina fa li tax moo waxoon ko euh, ba mu xëyee suba ñu ngi may message. ñu bëri di confirmer waxoon nga ko nanga ma man leen lii du xam-xam. Mhm. parce que jàppewuma ko xam-xam li taxoon ma wax ko. Mhm. tali tali boo mën a gis. maanaam du ñàkk des fois ay accident di fa mhm. li taxoon ma wax ko mooy des fois da génn gis benn sëriñ mu ne ay accident dina am. Mhm. loolu du xamam. Mhm. wala ñu ne la nit dina faatu lool du xamam. kañ la xam di ñëw ma ni guy gi ñeer <laughs> ñeer ma ko yàlla. guy gi dina def soog bi sàngam exemple ñeer ma ko yàlla. wala man mii dinaa def soog. <laughs> bis sàngam. Mhm. loolu nit koo ko wax bu loolu amee a ah, ñi xam ne kii ci xam-xam la ko teg. Mhm. waaye accident dina am. Mhm. nit dina faatu nit dina blessé loolu amul sens. mi ngi mel ne tey nga ni football ak blessé ñoo ànd xam nga loolu. nit koo mën a gis ci kuy football. ku mu a doon dina am blessé dina ko xanaa kay da naan bu yàgg. wala bu bañ a yàgg. wala nga gis ne eh, maanaam nit koo mën a gis. maanaam dina ñàkk bakkanam mhm. rawatina kilifa yeeg mhm. nitu aada nitu diine yi sax ñëpp ci am kullu mhm. kullu nafsin sa saayixatin mawti bakkan bu mos dina mos dee mais boo taxee ne nit dina faatu kan la di kan mooy faatu kan ak ban bis lay doon ak ban heure moo tax ma ne lii amul euh, amul sens ay accident dina am amul sens ma joxaat la firnde accident dina amaat maanaam firnde bi ma lay joxaat mooy teguma ko ci xam-xam de tali boo boo mën a gis jamono bu tollooy fii. Mhm. Eh, dañuy wax ne euh, accident yi day bëri. Mhm. réew bu tollee fii. Mhm. du ñàkk waaye la wax mooy conseil ba may jox ku ci mën a doon na dem wuti lu ko musal. dinaa ñëw foofu noonu. waaw ñu gis ni euh, lii nii bu xewee. sëriñ yi vraiment. dëkk bi dañuy toll ci naqar. mais sëriñ yi dañuy jug. di profité di profité di ci wax. Mm-hmm. est-ce que loolu c'est normal. non c'est pas normal parce que gënul baaxul du ndam xam lan mooy ndam. Mm-hmm. nga gis ne accident day day am ma sacrifié wu dem génne sarax ba may génne accident bi wëlbati ko. Mm-hmm. loolu mooy ndam. waaye gaa yi duñ def loolu. la ñuy def mooy preuve la ñu bëgg. waaw dañu bëgg euh, dara wax waxoon dara. mu tombé ñu ni lii waxoon naa ko. loolu la bëgg xam mooy preuve. mooy tey ma xool def samay seet xool gis ne tey accident di am. Mhm. ma jaral ma ma xëy suba yëkkati sama euh, samay mburu mhm. gerte saraxe. Mhm. ngir accident boobu ba bañ am. boo accident bu amul ma sante ko yàlla te xam ne loolu mooy preuve. waaye sénégalais doomu aadama moo bëgg gis leen ma. waxoon naa ko. Euh, lii lii lii amoon na. yooyu lañ bëgg te loolu du ndam. moo tax lool bu amee lu mel ni bu amee. ñu bëri dañuy profité waxoon naa ko. nañ génne sarax nangam ak nangam. Mhm. bu fekkee gis nga la ngay gis da xam ne lii di ñëw ci ci ci ci askan wi baaxul. Mhm. la gën a am solo mooy demal nga toog sa roqo. Mhm. nga def la ngay def suñu borom wëlbati ko jërul sax ngay inter woo mu lay defal benn interview. dëgg la jëru ko. dëgg la kon nag gis ne loolu moo tax yu mel ni bu xewee rek ñu bëri dañuy profité. mais damay wax ne nit ñi am na nañu xel. accident dina am dafa yomb trop. loolu taxul nit ñi nit ñi nit ñi gëm la. la lay tax ñi gëm la mooy ah nga ni comme exemple wax dara loo xamee ne jour nga ko wax. ci mhm. benn heure nga ko wax. Mhm. te heure bu amee noonu. Mhm. waaw mais yooyu moo tax dafa nekk loo xamee ne. nit ñi daal ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax. bi ma xëyee suba dañu message. waxoon nga ko naan man leen loolu xam-xam tegu ma woon ci xam. ba ma koy wax. xam naa ni ala kulli xaal accident dina amaat Sénégal. te euh, ñu nañ ko tey jii. nee naa la accident dina amaat. naa la nee naa la accident dina amaat. tali boo mën a gis. àdduna noonu lay doxee dëkk boo mën a dem ay accident dinañ fa am. Mhm. kon nag loolu du du xam-xam. Mhm. waaw kon nag loolu moo nekk loo xamee ne. Mhm. xawoon nañoo naqari ci benn côté. waaw muy nit tëb tëb rek ne accident dina am. waaw loolu loolu métti nañu. moo tax damay leeral ne loolu kenn du ci gëm nit. wax dara ne lii dina xew. Mhm. kenn du ci gëm nit. Mhm. la ngay gëmee nit mooy nit ki da koy gis rek doyloo ko. Mhm. gis ci moom yàlla. waxtaan ak moom yàlla mën na leen di dimbali donte moom mënu dara sax parce que ki ngay sàkku di ko ñaanloo. ci yàlla lay sukkandiku. des fois suñu borom may ko yenn saa yi yàlla xañ ko ko. Mhm. te yàlla amul benn ñaan bu muy récité xanaa defal la ko ci àdduna. Mhm. wala mu defal la ko ci àlaxira mhm. kon nag loolu moo nekk loo xamee ne lu am solo la. ñu bari aussi tamit euh, jamono ji am benn seetlu bu ñu def que. mara yu bari léegi. daanaka dañuy influencer. nit ñi sax. ci génnee seen xel ci yàlla parce que dañuy taxaw taxawaay suñu borom. waaw loolu moom ku koy def ci réer ngay dëkk. Euh, doomu aadama mënuloo sa bopp dara ba nga juddoo dañ laa sànq solo la ay yére. mënul loo def dañ la ko defal mhm. booy dem eh, booy dem ginnaaw kër sax dañ lay raag mhm. ñu baal ma ci kàddu yi mhm. eh, mënuloo sa bopp dara nga bëgg taxaw taxawaayu yàlla loolu ak dof laa ko jàppe ak eh, réer ak maanaam torox taa ngi àdduna loolu laa ko mën a jàppee ko xam mbiru suñ borom dëgg dëgg doo mos naagu ko xam mbiru yàlla dëgg dëgg doo mos wax ne lii suba dina xaw kon nag kuy jéem a taxaw taxawaayu yàlla da nga xamul suñ borom. Mhm. ay mayam ak ay xarbaax xarbaaxam. Mhm. ak ay eh, màggaayam. Mhm. xamoo ko. saa boo ko xamee rek doon naa ko ci dara. kon nag ñi koy def may ñaan yàlla yàlla na leen yàlla gindi. parce pexe seytaane la pexe mooy dox loolu. kon nag nga gis ne loolu ñu koy def maa ngi ñaan yàlla gindi leen. waaw waaw ma ñëw ci ci tolluwaay tolluwaay réew mi fi réew mi toll. lan nga jàpp ni moo ci solution. solution bi lenn la réew bu tollee fii ku mën a doon ba ci xale bay doog judd sax demal nga wutal ko muslaay. muslaay yooyu dinaa fa ñëw. waaw <laughs> dinaa ñëw ci muslaay yi kon ma delluwaat ci ci ci bi ah. waaw euh, accident bi. Mhm. ñu gis tey nombre bi mu amee. Mhm. ak li nga xamante ne moo waral accident bi muy muy muy mbaam donte programme suñu borom la. Mhm. foofu ci baatin lan lañ fa mën a jàngee. waaw loolu saytaane la donte suñu borom moo dogal. mais lépp loo gis dafay am sabab. Mm, loolu saytaane la. mbaam moo traversé. benn oto bi di moytu ba far mbëkk beneen bi. Hmm. bi muy doog am dix neuf moo mu amoon. Hmm. léegi àgg na ba ci vingt et un. dañuy ñaan yàlla yàlla na yam foofu. ci vingt et un yooyu. loolu saytaane la. Hmm. dañuy wax ne nit ku mën a doon booy dugg ci oto wutal ñaan ñaanal ñaanlu ñaanal loo xam ne da lay protéger ci saytaane. da lay ci ñi nga xamee ne. ay ay ay yàqkat lañ. parce yooyu bu amee. daanaka d'habitude bépp accident boo mën a gis. ci kaw suuf am na lu ko sabab. Mhm. lépp bu mën a doon am na lu ko sabab. Mhm. waaye da nga naan sabab boobu yàlla musal ma ci. Mhm. waaye loolu xam nañ ne seytaane la. waaw moo tax daanaka noonu la. loolu bu amee daal. nit ku ci nekk rek na na dem wut loo xamee ne dina ko yàlla dina ko musal. foofu noonu laay ñëw. waaw fan yii passé bu ma fi ñëwee am na loo fi may woon. Mhm. mu di tàndarma. Mhm. ak suukar. Mhm. ak mbiskit. ñu bari nag sonaloon ñu ci ñun. tey nag ah, affaire bi amaat. gars yu bari ni ma booy dem. ah wàllu kaaraange waxul sañu mu dimbaliñ ci. <laughs> waaw kaaraange comme gars yi eh, am na ci ñoo xamee ne amuñu jotu eh, toog di wér. parce que nit doomu aadama dina toll foo xamee ne eh, yitte àdduna. bëgg a tekki dina ko jaral ba tax na pour mu am toog di wér di sa du ko man mhm. moo tax ñu génnee solution boobu bi nga xamee ne. Mhm. xam nga doomu aadama mhm. nit ki. mais ak sarax yi ñi gëm. maanaam nit exemple laa la jox. nañ. Euh, ki mën nañ ñëw di la ñaan loo nga laaj ko téeméeri million du la ko joxe exemple. wala nga laaj ko euh, dix mille franc du ko joxe. mais tey jii boo nekkoon demal génne ñetti nag. ci saa si nu mu mën a def dina ko génne. Mhm. kon nag léegi dem nañ ba nga xam ne gëm nañ ne sarax moom. Mhm. dafay def effet. Mhm. ba tax na ñuy joxe woon ci mbiskit bi tàndarma suukar. sarax bu am solo la bu am doole. encore une fois dama koy waxaat. képp koo xamee ne bëgg nga suñ borom muccal la musal la. ci ci li xew ci jamono ji. del génne mbiskit suukar tàndarma. même bu dee bu ci nekk fukki dërëm sa baax na cent cinquante franc. même bu dee mat cent cinquante franc baax na dee ko faral di génne dee ko saxal. di ko def sax ajjuma boo koy def yàlla dina la dimbali. Mhm. ci semaine boobu yëpp suñ boobu dina la ci musal. Mhm. di ko farataal di ko def yem na cinquante franc cent cinquante franc. dëgg la koo pëgg buntam ne ko cent cinquante franc laa soxla mu jox la ko. dëgg boo ko defee yàlla mën na laa musal parce que lii xew nii ah, day amaat yeneen ak yeneen yoo xam ne da koy gis. Ah, man ak yow toog nañ fi ñuy wax. waaw léegi dañuy confirmation laa nee naa la. gis nga fii ak deux mille deux mille vingt quatre. Hmm. fii ak deux mille vingt lu ne di ko dégg Sénégal. waaw ah, ñu ko yàlla dinañ ci taxaw taxawaay bu am solo ci suñu borom musal Sénégal. Hmm. waaye dafa am ay nit ñoo xamee ne ñii bu ñuy defal ñi dañ yàq. kon nag may conseil képp koo xamee ne ak may bàyyi xel. Hmm. demal nga wuti kaaraange foo ko mën a wutee nag baax na. waaye teewul di sàq sarax. di ko def ndax yàlla suñu borom mën laa musal. sa doom bi doog a judd sax demal nga wutal ko muslaay. parce que li xew nii euh, ndaw yi ñu lañ gën a soxla. ak xale yi doog a jutu. màggat. Mhm. gars yi soxla soxlawuñ ko. Mhm. ñi nga xam ne dañoo toll seen digg doole. Mhm. ak ñi nga xam ne dañu nekk ay xale yi doog a jutu lañ soxla. kon na nga gis ne loolu bu amee. ku ci nekk na dem wuti muslaay. boo ko defee rek yàlla mën nañu ko dimbali. Euh, euh, fi may fi may jeexalee. kii di borom réew mi. di son excellence. tey ban message nga koy lancé ak aussi. tey yan matukaay la war a jël ci réew mi. waaw matukaay yi ñu war a jël mooy kulukum raaxi wa kulukum mas'uulu an raayati lépp lu la yàlla dénk ab sàmm nga ci des na la laaj nan ko doon sàmmi lam conseil ba ma koy jox mooy mu xool ëllëg yàlla dina ko laaj. Mm-hmm. nan la yore woon Sénégal. ñëpp ci yam man mii suñu boobu dina ma laaj nan la nan laa doon sàmmeek sama njaboot. sama alali bàyyi nan nan laa ko doon sàmmee lépp yàlla dama koy laaj kon nag la ma koy conseil ba ma koy jox mooy euh, Sénégal sénégalais yi ñu ngi ñaxtu dëkk bi metti na jafe-jafe yi chaque jour yaa koy gis kon nag loolu bu amee la gën a am solo mooy mu tax mu taxaw def ab seetlu bu defee seetlu xool li li nga xamee ne baaxul mu hmm. jël ko sànni li baax mu teg ko ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar kon nag conseil boobu laa koy jox. mais hmm. bañ a jàll ci biir yeneen gars yi di ma ci mere. léegi lan nga jàpp ni mooy solution daa ni gars yi fi euh, solution bi mooy. mu solution bi <laughs> nañ bàyyi noonu nañ bàyyi noonu rek moo gën <laughs> loolu moo gën. Euh, waaw kon nga gis ne. Hmm. loolu moo nekk daal lu am solo. Hmm. waaw parce que bëgguma di ci xoos. dëgg la di ma ci mere. dëgg la. loolu laay ci bañ. Mhm. moo tax daal la gën a am solo daal. Mhm. na xool lépp lu muy def rek na ko xool bu baax a baax. dëgg la voilà gars yi mu ngi noonu ah. Mhm. moo nekkoon sama invité tey eh, damay wax ne li ma waxoon laay waxaat rek bu jamono tollee fii. Eh, il fallait nga seeti ñi nga xamante ne bu waxee nit ñi déglu leen. ndaw ñi déglu leen mag ñi déglu leen. ah mu ngi noonu moom lañ dalaloon. tey eh, ban message ngay lancé ak looy tàggatoo. waaw message mi may lancé mooy nañu nañu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko waxal ñaar. waaye di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. defal Sénégal jàmm. Euh, ndaxte jàmm ci la lépp xat. Hmm. waaw message boobu laay ñaan agression yi bëri na. Hmm. yàq yi bëri na. Hmm. waaye nañu delloo suñu xol nañu delloo suñu xel te xam ne lépp Sénégal la moom. démb yaa ngi gis làmb ji gars yi ñu ngi. yu ne ñu ngi koy def. loolu amul amul sens. la gën a am solo mooy nañ xam ne suñu alal la ñuy yàq. te loolu baaxul. kon nag euh, képp kuy yàq. doo mën doo mën a defar dara. kon nag damay ñaan yàlla yal nañu yàlla gën a dimbali. waa axiru dafanaa alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.